شنو برمنا وحكي القرآن لي يين جلتي من التك من قال ما تشين كاو تشين لوس فمن جنة ينكو في يبالي لما قال لي تشين لوس ما يوارو كور كم فك نغي دون دون ما واو بول يين نك ملني dañ lay xañ lekk ak naan ak mbooleem yiñ ci xañ nit ki bañ defe ne ku ko def da ngay dee déedéet am nañu ko njëkkoon di def laata ngeen di dikk ay bis rek la bis la yoo xam ne ku mu fekk ci tukki boo xam ne daf cay wàññi julli may nañ ko mu dog ba ñëw fay bor la waaye ku mu fekk mu wérit yi may nañ ko mu dog ba wér bu dee wéri di koo xam ne nag daa dëkk ak moom bu ko ko kattanam mayee saa bu nit ñi dogee na leen jox na jox ay benn benn luñ dogoo ñoo ko mane waaye nag nee na lu waay man ci koor lu néew néew moo gën fuuf ku dem suratul baqara dal ci fekk yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum asiyamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquuna ayyaman maadudat waaye ñaari aaya yooyu sës ba ñett tàmbalee ci shahru ba ci mujj mooy shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda wa alfurqan fa man shahida minkum shahra falyasum la wax kum fekk ngay dund wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar daan ne li yàllay tege lépp di ko teg nit ñi luñ mën la la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha yàlla du teg nit lu munta def soo gisee nga ne kuy tukki tukki bopp daf cay wàññi julli mën naa bopp ba dellu si fay wala mu wéradi yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra wali tukmilu al iddata wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun mu mel ne nag lu mat a waajal la ku ko waajal mi ngi dikk ku ko waajalut mi ngi dikk ndax am na yaari weer yu ko jiitu yoo xam ne wenn wa ndeyu koor la tudd ñu koy wax rajab wenn wa barax la tudd te nekk ci li ñu ko tudde Shaabaan kenn ku ci nekk jàmbaar yi ñoom danañ ca waajal koor bi bokk yi jaamu yàlla bu nekk daa am waajtaayam lu dul jaamu yàlla sax daa am waajtaay ñëw ñu lu sotti te waajaluñ ko ci misaal ku bëgg tukki yu tukki bi laaj yépp daf koy jéem a dajale bu dee ay këyit la bu dee lu muy sol bu dee lu muy dugg dana waaj paas ba kon tukki waajtaayam laaj na ab yóbbal bu dee ay kayit la soxla laaj na ay kayit moom itam dañ koy waajal door caa àgg waaye yi nga xam ne suñu borom ko bind boole koogu mu ne lu ci ne mën na ko sottal ci lu amul sabab waaye ñu ngi ñuy wan lu ci nekk waajtaay wa muy waaj war a sotti ku ci mel ne lu ci mel ne asamaan si am na lu muy def rek xel dana nekk ci ab taw lu waaye bañ mu tooy mu daal di koy fat bu dee taw bu taw yëpp mooy mbargala ci ñu yëg ni tawal bu jékki-jékki rek na jomee ak si day tàmbali bi lëndëm mooy ginnaaw tekku seen jëm suuf ba yàgg jant bi sox moo ne ak suba jib de du jékki-jékki rek jant bi ne tell waaye day leer ndànk ndànk ndànk ndànk ngay xàmmee lu we lu weex ak lu mboq ba yàgg nga xàmmee lu ñuul ak lu sokolaa ba ba jant bi fenk nga xam dootoo werante lii nii la mel loolu lépp waajtaayu bëccëg la moo ne yowmal xiyaama day ak guñ ca waaye saa su nekk ñu wane ñu gis lu koy wane yàlla dina ko wan xam nañ ne yow man na kenn du ca dem te déewu ba noppi yoon lañ gis ku dee buñ ca tegul bëti danañ ne ñu muur ko mun def ca suuf mu wóor nañu ne kii ku ko gisaat yaa yàlla waaye ni nit ak guñ ko ci ñax mi. bu tawee ba bis ba dellu si foo xool day waat loolee ku ne yàlla day lekkal ni lu neex a gëm la lañ gis waaye bokk yi jaamu yàlla bu gis am na waajtaay julli yu juróom bala caa kenn jëm dana jàpp nodd topp ca bu dee fii ci Tuubaa ci jumaa Tuubaa ji danañu sone ñu xam ne waxtu wi tàmbalee na ñu teg ca diir nodd tegaat ca diir sogu julli sone boobee lañ ci julli mooy ku am lu tax mu war a jàpp na dem jàpp bu weesoo jàpp mu dem defi ko nodd ba lu muy tegtale nit ñaa ngi tàmbalee daje liqaam mooy ñi ngi ñii di ko def kon lépp jullee waaj ya cay top topp ca mo ne azaka itam day ku amagul lu mu joxe azaka yi lamay joxe bu tuddé sarax rek muy joxe azaka ndax bat bobu la bi sallallahu alayhi wasallam jàngale non la ko yàlla khuz min awalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha waye aj makka it am na ñoo xam ne ajeeguñ màkk waaye ñu ngi umra ji ñenn ñi sax dañ koy wax dañ koy tuddé aj bu ndaw gi donte bokkul ak nak waaye tala waaye ñi nga xam ne ko te amut jot tuuti ñi ngi dem di umra ji di dig ñooñu la ñuy waajal kon ku ne xam ne ci seen xel lañ cee waajal mooy fas yéene aji moom saabu mën nañ na ñoo xam ne tam ñuy wax ñuy fàttalante nañ koy waajale mooy waajale ko lu ñu togg ko yàq laaju waajale ko lu ñuy naan waajale wuñ ko dab yu ñuy yàq lañuy ñuy topp ak dab yi njëkk la naan waaye ni ñu koy waajal moom at mépp waaj di faral a woor alxames ak altine ak nangam ñu fan ci weer wu nekk ak nangam ñu fan ci weer wu nekk ak nangam ñu fan ci rawati ca nag bi subaa rafa bi nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu fanu tabaski ci ñi nga xam ne ajuñu mag ak liñ tudde gunge koor muy juróom-benn fan gannaaw bu jullee ba noppi korite mu mel ne kon lu ci nekk gannaaw am na waajtaay koor moom waajtaayam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci ab jullit mooy tuub tuub mel ni kuñ ne indi sa ndab ñu yàkkal la ki ñu ko wax bu dee nit la te jox cër ka koy yàkkal du fa yóbbu ndab lu mu ko naan raxasaasal leer da koy raxas ba mu set mu weer ko ba mu wow fendal ko siital ko ba mu set mu siit mu fon dem ne lekkal lañ ma fi kon wàccaay ñu jëkk ci weeru koor ku ko fekke te di ko séentoo li ñu koy séentoo mooy tuub la woon daaw ak ren te fas yéene bu duggee ci koor gi mu woor ndax kat xamut ba xam dana ko fekke waatam déet ak diggante daaw ak ren la fi xewon tam xam ko yàlla xam ko mu xam ko ne li ak mom mu ne daba dabaatal ko ci bir waru ko ci beccé ak guddi ben ñaara ñaareel ba mooy bu sentu ko joté mu bokk ne koy sentu nan gaay li wax ci wéré bu ko ñëpp waxé ku koy sentu sentu weer dafa bokk ci wa tay wéru ko déglu rajo télévision yi baax na naam waaye ñëpp ñoo toog di ko ji kan mooy dem di ko di ko seet di ko di ko seeti te xool ko gis ko dafa am lu ca aju muy koor gi nag koor yi kat ca la aju dana sax tàmbulee woor te fekk duggul ci koor gi waaye dog ci biir koor gi moom wari ci biir koor gi dara ci àdduna jël ko moo tax séentu gi mat a sonne lool waaye la ca dolli ko it mu ñetteel ba mooy fas ku yéenee woor bu la yàlla mayee ak wér xool ñi nga xam ne ak wér moo dox seen diggante ñu woor weer bu ñu amoon ak wér woor ko yow nga ne cocc loxo boo tàllal mu tàll tànk boo tàllal mu tàll lu ñu wax lu ñu néew nga nga dégg ko ndax neexi nopp bu ñuy las lu kursa yow la ñuy am yaakaar lu ñu xamul lu mu sas lu nekk dañ naan la mosal na ko ba xam sax na dara mbir kon yaa ngi dund sa yaram yépp a ngi dund waaye boo xoolee ñu ne laaj daaw ñu mënoon ko te mënuñ ko ren ku ko defoon daaw def ko daw jéeg ku ne xam na ne am xelam dana ci nekk ren waaye su ko ak mayam su ko ak wéram mayut nag xel ma du ci da ciy gën a nekk mu gën a ci waaye ku ko fekk te wér na fas ko yéenee woor ba mu jax ak waaye la ca dolli mooy bañ a def koor rek aada léeg-léeg ñu dégg ne ne diw barab sàngam lay woore ji barab sàngam lay woore ji baax na de bu fekkee day dem di gin di ñooñee di leen jàngal ci koor gi yokk seen pas-pas jar na jóg lu gën a sori sax waaye koor bokk yi moog jur gi benn la bokkut ak at mi nga xam ne benn barab lañ koy defee fépp fu nit nekk julli di fekk rek mën na faa woore teewul nag ñun ñu def suñ maam am ca wàll ba sax biir koor gi ñu ngi ciy séddale yoo xam ne diine xamu woon waaye lu rafet la waaye am nañu ci dem ma toggoo ci coono yoo xam ne nag jëru ko nag waaye koor gi dee su ko waajale junj naa ko lekk dañu gis ñu jaay ay dab naan loo taaja ndoo ko lu baax la yeneen ca gis ñu jaay boo dogee ba noppi boo ko defee ñu def ko naan maanaam lekk ko wala nga naan waaw li ñuy jaay lépp di ko lekk ka naan ci koor gi ndax nit ki bu ca jaaree nam ca war a jaaree comme ni ñu ko bëgg ñoom ndax dana talaa dem ca jàkka yi dinaa fi la ji guddi tarawih wala xiyaamu su nee dàdd ba waa ji bébb gi koor ni mu solo ci woor ko guddi ko da caa bokk loo ca man ci def lu baax nga def ko ba ba nelaw dikk nga nag ndax nelaw yàlla ñu moom yàlla rek mënul nelaw allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum la taaxuduhu sinatun wala nawm ñun ñi nag ginnaaw ñi ngi lekk kanaan faaw dañuy nelaw di yeewu di gëmit kon boog ñi sëriñ bi jàng la ci njàngale yonent bi ci masaliku ginaan ne da ngay def koll bi ñetti benn bi soo wooree ba ngoon nga def ca aw ñam ndax moo tax nga dëgër ba mën a war a sukk benn xaaj ba nga def ca ndox ndax lekk ak naan ay seex lañ yoo xam ne kenn mënut a dem bàyyi ca nga bàyyee ko fa sa cër yii ñu léeg-léeg nga yoo xam ne yi koll bu ne dadd ba wenn dara mënut a dox rek la ku njëkk nelaw dootoo nelaw loolu nag koor day jàngale bu baax a baax a baax xiif lool ci bëccëg bi mar jaamoo ko yàlla xiif mar jaamoo ko yàlla ndax ni nga suñu borom waaye bu guddee dañuy def ci guddi gi yëpp tamit yu baax lu mel ne jàkka yi bari lool yàlla na ko yàlla gën a dolli kenn ku ci nekk dafa tari alxuraan ju rafet julli koo xam ne boo ca duggee dootoo bëgg a bàyyi benn danga ko def ngir jaamoo ko yàlla waaye am na ñooy xool ñoo xam ne man na laa sonn dootoo ko bëgg a bàyyi danga gis mag moo xam ne dem na ba taxaw ba mënut taxaw ñu mënoon ko mu toog waaye doo nangoo toog waaye danga gis gone xam ne da nga ko waroon moo la fay jiitu moo la fay mujj loolu nag ku koy xool sa yaram war naa daw kon yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu fekk ko jàmm te suñu borom mooy wër guñ ko mën a joxe. te may nu it ak njëggalam bala ñoo dugg ci koor baal xaq ñëpp baloonte xaq te fàttaliku ne ñu ngi jëm foo xam ne dara du fa doy te it koo dégg ñu ne bàyyi na fii dañ koy gunge dong waaye kenn nga mësa mën a doon dana ànd ak moom dem te ku dem lépp leer na ci moom ku dem lépp leer na ci moom mu ngi nett li melokaan nga bay naan fa kashafnaa anka xifaa'aka fa basaruka al-yawma hadiid man su may xool ba ci miir bi fi laay yem la si ginnaaw miir bi xaw ma ko waaye nee na ku dégmal foofee day xool sax di bët miir yi ak océan lépp leer ci kanamam la leer ci kanamam te kuy dund boo dee la nga waxal ba oxygène neel teg ba xam yow ñu lay wax waaw wala déet ndax ñëpp danañ ca daal gungente rek moo fi am waaye ñi koor gi fekkoon daaw fii fekki wuñ ko ren bu seen ak yaasu su ma leen yóbbu ñun ñoo ko fekkee ren ci fan yii yàlla nañ fekke koor ci boppam du suñu ndàmbaam du suñuy pexe kon boog ña jot a dem daaw réccu nañ lu bari réccu moom faaw suñ mag bind na ne ñu faatu ñëpp boo leen laajoon tey luñ gën a bëgg luñ la wax gis kii wala kaa dindi si woon def fi lu baax rek li ñuy bëggaat wa arghabul ashya'i lil amwaati rabbun الى الى الدنيا مع الحياه ولو صواعقا فقط ليعملوا صالحه تنفعهم ان قفلوا جنس الارض من الاشجار ما يسكو تلك اي شيء با من فاي دفاق لو باخ يوبكو نخ لان فا يوبو مو نيو مو بارك لان فا سينا دون تدو فيديو خمنا نجرين لا موتا القرآن بولين لك بدي يدد من غير ما يما فين ما يما فيك سوا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو خائلها كون في لنا الميمة ملال نخ ميمة ما دين كان ميمة ما جحل ميمة جحل لا يبدك ملك بدك من رك قول لن تيمان أبغمكو جبرك براوة سخلين يوفا من وجه مك جبرك دين أنا تسبنا بدافع gannaaw takkusaan lañ koy jébal boromam gannaaw gannaaw tisbaar lañ koy jébal boromam rek day dégg a di cay noppi bàyyi ko moom kon boog borom bi moo santaane fii ak fan yu néew rikk nañ ca taxaw barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li saa'iril muslimina amin